Fiji ci tëngeej am nañ juróom-ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak benn enseignement général comme technique ñu mën ke génne ñaar téeméer ak juróom ak benn yi nga xam ñoo nekk enseignement technique mu wara a des donc juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk yu nek enseignement général ñi nga xam ne ñoom ñoo commencé seen bac tey bi ngeen di egg si fekk na ma jógee ci tournée bu ma doon def ci centre yi ndax dama centre yi nga xam ne bi dama ko tuxal ci semaine bi passé nag ndax dañ fa amoon ay jiixi jaaxa ci nawet bi foofu laa njëkke huit heures bi may egg ñu ngi distribuer épreuve yi bi ci des mooy centre bi gën a rëcc ci Tëngéej ñu lycée Abdoulaye Sadji nga xam ne am nañ fa juróom quatre ñeenti jury benn bi nekk jury enseignement technique ma jóge fa dugg biir Bargny xool foofu nu demit dugg aussi Tivaouane Peulh nga xam ne dañ ma fa signalé woon ne ma saal yi mën na am problème bi ma wëree loolu yëpp gis naa ne suñu fukki centre ak juróom benn yi nga xam ne nii ñaar fukki jury ak ñett lañ ci tasaare lu mat juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñaari surveillant ak juróom-benn fukk ak ñetti secrétaire nekk ci biir di ci yëngatu pour organiser bac bi ñoom ñi ngi dox ni mu waree ñi ngi dox ni ñu ko xaare ñaar yi nga xam ne moom lañ doon tiit muy euh, feebaru mbas mi nga xam ne moo dal suñu kaw nga xam ne daanaka dafa xaw a jaxase lépp dispositif bi nga xam ne ni mooy tax nit ñi seen xel dal fekk naa mu nekk en place dugg naa ci ay centre yoo xam ne nii lavoir yi am na joo xam ne sax du jeex ndax dafa bari ba nga xam ne foo tourné man nga raxas sa loxo booy dugg dañ lay appliquer thermoflash nga raxas sa loxo ba pare ñu jox la gel surveillants yi disposé nañ leen am na ay jeunes yu nekk ci biir dëkk bi yoo xam ne dañoo organiser wu taxaw di organiser loolu fekk naa aussi service d'ordre ñoom ñëpp ñu nekk en place donc fi ma toog nii di wax vraiment amuñu benn crainte ci côté boobu candidats yi ñëw nañ à peu près boo jël juróom fukki ak juróom-benn nañu daanaka ab absent yi noté woon bi ñuy def anticipé philo moom lañ amaat te anticipé philo daf ñoo mayoon ñu natt un peu fa nu jëm natt mu moo ñu may ñu xool ne d'ailleurs moo tax sa diggante bi rapidement ñu ne nañ tuxal centre bu mel ne centre Momar Sène Wally xëy na côté Bargny laa dugg ci centre boo xam ne tawu biig bi xaw na am fu mu tooyal tuuti mais loolu terewul xale yi ñu ngi composé te fekk naa proviseur lycée Bargny ak inspecteur de l'éducation de la formation bu Diamniadio ñu nekk ci ba nga xam ne nii problème fi mu nekk nii ci tëngeej ba fi ma toog di wax ak yow amul fu mu am wala bu amee signalé guñ ñu ko moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax di gis ne wax dëgg yàlla njort yu ñu amoon ak di ragal ak di tiit daanaka gisuñu ko ci tey jii romb nañ CFA bi ñu ngi ci biir bac bi incha allah ñu ngi ci BFM bi ba ñuy tiit di ragal depuis ñu waree tàmbali le 2 xalaat mbas mi ak condition yi jàpp naan sax waroon ñu mën a dugg

du ma fàtte aussi sant parents yi sant vraiment acteurs yëpp pour wane ne nañ sant yàlla xam ne li ci des soreetu incha allah fii ak le 14 bac bi dina jeexal jàmm ñu dem ci BFM bi lépp ñu daal koy terminer ci jàmm incha allah.